Ya saya aouzubillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Khalifa rappeur ah, la miñu askan yu malla sum waji nonu na feqi eh? nonu yu ya tous ñabe muy budbudi adamo sa man duma fi sax nek di sagantex yow xama di ñaaw la miñ quoi yow yu nga yu nga sa way motax nga daw laxu yaay deug Ñewal fi senegal man maay fi senegal dakaru ñay jël job say ay mi senegal Sénégal ah comme moom caga la moom moo doon Kilimanjaro ba deux puces ëmbal ko mu jur la di sa bàyyi comme jural askanu Sénégal ab doome haram nga daw laaxu fee di saaga gor yu baax yi c'est ay gis nga ma ko tegee bët saa waay acide sulfurique jël acide nice acide sulfurique so ko xoola sa bajo yaay muy di gas ma i filmer en direct su ma paree envoyé la ko ba pare publier ko après bu dee perpète la sax du jib ma dem tëdd ko barki alxuraanul karim saawaay saawaay yow réewoo sax barki alxuraanul karim ñun ñu ngi fii si dëkk bi fii si taan bi di ko dund waaw nee la du maax yow maax sa baay yi lay yónni la doomu xaram yooyu est-ce que dégg ñi lay yónni ngay saaga di jaay affaire de plus bi nga doon gëmoo sa bopp kanaara këtt geen saawaa ji yow ba su ma la tegee bët yow sa làmmiñ laay dagg photo aussi incha allah man la sum waaye bu dee perpète tamit ñu dem dund ko parce que tamit xoolal ndam lay nekk si islam bi parce que mel ni rey naa firaawoona wala abu lahab lekk barki alxuraan fu ma dem tëdd xoolal man naa yar sama kurus lekk waaw di sant yàlla di julli seen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxuraan jàgg bu bon mi nga doon saawaay man ciori jib de man alhamdulillah man xola muy sama yaaya ya parents alhamdulillah xola duñ connecté yaay deug waaw te ñi ci connecté sama family boy duñ la yo boy yow dem yi lak boy ak gaay geumul sen bop canaré kanaare yi ak deux puces ñoo lay sétane yow. yaay deug mais gor yu baax yi nit yu baax yi la sax sétane barki alcorane de nga machine bi de nga machine bi ha machine bi yaa ngoy deug yaay deug machine bi non ha ah? mi ngi waaj a kacci kacci sa dëjëw nday acide sulfurique ma wax nice nako soti sa bajo yaay ba pare diko filmer waw bu boba nak inshallah xola rew réew mi fii caga yeb boy fe nañu jare retraité ken du saawaay xola nangoti bay di cagatu ba 2 plus di la eumbal ngay jur ay dom yu domé haram yu melni yow domé yow nga daw laxu ñoo nday tan ñool fi Sénégal nga ñew waaw ah, boo am li ngay dund li ngay def nii gars yi gëmuñu la balaa ñu lay gëm taan fii nga koy def di génn sénégalais yi di la teg bët ñun noonu dañ koy dundee saa waa ji tous ñabe muy bud budi sa dëjëw ndey xaaral rek doom ya sa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim khalifa rappeur ah, la miñu askan yu mal sum waji nonu na fekk ya tous ñabe muy bud buti bog wa di sus alors sama gars gis ngeen jëmm ji ah clochard bi ku tekkiwul dara kii kii naka saawaay nii la mën a mel am nañ ay information yu leer te wóor si moom kii naka saawaay yaay ji xoola caga caga caga bu mag di cagatu diggante corniche bi ak Soumbédioune ak Kilimanjaro daan fréquenté nag Kilimanjaro lu bëri ba tase faax benn góor jigéen du xam ngeen Kilimanjaro góor jigéen yi ni nga fa daan feesee saawaay yaayam xoola góor jigéen la tasante ak xoola Kilimanjaro gor jigéen boobu noonu nag sawaay xoolal langal ko xo gor jigen bobu mom moy papu clochard bi ngeen di gis ni adamo lu leer nañ la lay wax ni du ay tuuma te du ay sos ñun duñu tuuma te duñu sosal doomu adama barki alquranul karim waji ki ni jëm ji ngeen gis ki dafa salte ki baaxul pour image du sax barki alquran ki deretam leg la lay wax ni gañom leg la lay wax nii sawaay baaxul barki alquranul karim papa ji góor jigen la te yaaji ancien tiagalawon non la demee yaa ji nag xëy na instant bi dem na ba sonn yorul dara instant bi moom daw na dem itali ak almaañ diggante Allemagne ak Italie am na fa ay far nekk góor jigéen ñu ŋàmb ko xawa muy wër di saagaate saawaay di tëbaka dal waaw te amul benn njëriñ li muy def saawaay gëmu si dara la preuve sañul teg tànk Sénégal fii du fi ñëw te fi muy nekk foofu Italie ak Allemagne yooyu sax dafay nëbatu barki alxuraanul karim ngay soop naan da ngay génnee son xaw ma suñu Sénégal yéen Sénégal yéen a ko yàq yéen kase yéen a yàq Sénégal seen lobby bi yéen a yàq Sénégal barki alxuraanul karim man du sax man ak yow Adamo nee la maax sa baay la te sa baay sax laa lay wax nii du maax moom ñun saa waay xoola dëgg na ñuy xeex pour intérêt Sénégal ak justice ak yoon noonu la demee di xeex tamit góor jigéen mu jóge fi Sénégal ñun loolu la ñuy xeex sa baay sax xeb ne ko weesu ne ko di dem mais comme ça da ngeen di jaay réewande ay menacer saga lu ngeen dugg ci jaay affaire fum yam na neex barki alquran yalla nañ andal te deug nañ andal duñu tité duñu ragal barki bañas billahi wallahi wa tallahi yow da nga di dara yow do dara ngay gene so xawma nan ay ñi yaq senegal yene yaq senegal hein di pervertir jeunesse bi di fi dolel gour jigen hein barki demo nya yaangi way sa ay way di way ay wayu tiaga hein di influencer boy gamal la sum way pour ñuy tey si tey nga ñëw génn ay naa fekk ngeen gëmoo leen dara doo leen dara te xam nañ la bu baax saa waay da nga la yónni da nga la yónni Adamo barki alxuraanul karim yow da nga la créé ki la créé pour ngay saaga sénégalais yi loolu yëpp xam nañ ñu mu demee barki alxuraan mais dëgg rekkee mujj noonu la demee li wax na sama gaay yi xoola dëgg dëgg la fen fen la